sama rakk baax na grand boo xoolee li fi ñëw démb ak tey nga xam ni petit baax na grand petit imagine toi ku xool sa yaay ne ko waa yaay man tibile mii bu gaañuwee yaay sama àdduna nan la war a mel ndakate petit may njëkk a dee petit bii tëdd guddi sax xam nga lan lay wax yaay sama yaay bu mag sama yaay mooy yaayam bu ndaw danaan la je I love you baal leen ma ak moom loolu lay tëddaale wallaay du affaire témoignage de yàlla rek ma tiim yàlla lay waxal ay grand petit moo baax petit gommage picc yii mooy dindi buggul sax nga laal diwu xeesal petit moo may firi ku ma xam rek ku gis samay statut gis sama yaay mooy fobeere néeg bi sama yaay day fobeere guddi fobeere bëccëg mooy ñu seexlu ñooñ mooy fabeere armoire yeeg clim yeeg ventilo yeeg lépp mooy defar il est tellement disponible Petit jullite ku ko xamul Petit alxuraan lay jàng amul xarit demul dikkul Petit da nga imagine toi ñu koy forcé naan ko Petit doo am gel war nga présenté ñu di ko tooñee Petit léegi yow kuul nga de da ngay toog rek sa kaw mu ne ma tibi la àdduna daa yàqu nit yi dañu dañoo day waar ay petit booy jëw sax di foo nii di wax ndax di wax foo rek petit danaan la mm, mm, mm. ñu naan ko xool ko ngay mel ni muuma sama rakk ku góor ki suñ taaw bi ku góor ki maa ko mag danaan ko mooy suñu kilifa kilifa kër gi barki démb petit balaa sama papa di gaañu petit nekk ak moom hôpital moo fay fanaan petit ku boppam di metti petit moo lay ñaanal mooy mocc bët te wallaay azim da lay moccal sa bët da ko day mocc ba nga xamante ni grand petit baax na. mu mel na ndaw loo xam ne yàlla da koo defar parce que seede yi ñëpp di doon na ndaw loo xam ne nii ku ñu yar aussi la ci diine. Ah. <laughs> xam nga nit nee na bu leen jënd ndugg bu leen ba may dem di jënd ration pour dëj bi am ku nañu bu leen jënd de bu leen jënd pëti mooy defaral boppam dëjam. kon non xaaruñu dara ci kenn macha allah ci famille bu ñu bokk macha allah ma ne ko man ma kenn ci dara lépp la ñuy jënd ba mu mat sama yaay dafa ne jënd leen ba jënd meew yi ñuy ndekkee ay paquet paquet lañ fi wàcce gis nga bañ duggee ci kër gi benn xaritam buñ naan ami yaayam la xaritam wa nañ fi ndox ceeb dawlin biscuit ndox mënuñu laa wax partout dans le monde partout Amérique États-Unis Allemagne ku nekk woote ndax peut doo leen sax xam xool démb ñu fi ñëw ñëpp xamoo leen ñu jógee ba Thiès petit day wër mbokk ba ay Thiès ñoom Muna Fadiga ñoom Bakary Fadiga imagine toi démb ñett soog am na ndax petit ñett soog ñett kenn ki dañ kaa téye police ville jam dañ ko téye keneen ki xaw ma. papa. même pas vingt jours. ay euh, ah, yàlla. rabbi samaawaati ard. ah moo ñu moom lu ko neex def. def na lu metti mu metti mu metti waaye moo tay waaw ah. kenn mun ci dara. yow mi nekkoon ak Petit ci côté dafa dara jotu ko. dafa julli timis daf may tooñee ne ma reetaan loo nga sama papa ba sama papa dee man ku ma xam-xam ne sama diggante ak sama papa mu ne ma reetaan loo nga sama papa dee day feebar ma koy feccal lu ne may def naka te petit moom i dama koy reetaan loo ba mu dee dañ doon dàqante mu naan ma jeeg bi may dox di def ay défilé ak affaire yooyu noonu maanaam da ngeen a jël seen yoonu bopp mag sama jabaru frère bi fat Sow mu ne ñaari doomu ndey yéen a ngi toog ndax démb moom barki démb moo doon sama anniversaire doomu rakk bi Babacar may dàq ji petit pour dóor Babacar mu ne ma tey la anniversaire am xanaa doo ko dóor ñu dàqante dàqante ndaw nakati dafa dem juli timis te jàkk ba ñëw dugg ci néegam dee petit petit. xale bu bëggoon yaayam kilibam boobu ba ma cay nekk fekk weeru ma laajal ki mu ne ma waaye man yaay sama yaay kiliba ma ne ko petit déedéet ak sama mag si kanam bi mu ne ma yaa koy tourné petit bëgg sama yaay ne naa leen xam nga lan la koy ooye maman je t'aime baal ma ak <laughs> maman je t'aime baal ma ak maman I love you balaa moo dee sama code code am la jël jox ko sama téléphone. te yaay sama ko téléphone bu ko fàtte àdduna dafa gudd tànk petit xam nga ay xaalis bari la koy dénk wallaahi billaahi wal kitaabi fikki dërëm may jënd yére may jënd dàll may jënd caleçon xamul ñaan xamul koy jox léegi xaalis fin bu ma ko ko joxee war kaa mayaat leneen danaan déedéet du ko jël ndax yërmande hopital bi ñu nekk doo Allah day dajale xaalisam bu ko dajalee mu di ko jox ay malade li ma gën a metti mooy barki démb rek mi ngi naan tabax bi xaalis suñu xaalis tabax kër sax petit ko yor mooy kilifa lan lañ koy ooyee mu naan ma kenn du ko defaral néeg ak salle de bain studio lañ koy ma man ko yaa bëgg lu yoom xanaa dama lay takkal jabar ma naan ma eh, moo wax sa loolu naka teg du fekkee sax tabax bay am néeg kon petit rey na ma yàq na sama xol yàq na sama xol. mooy yaayam maa ko jur nee na yaayam bi ko jur mii sama yaay mooy yaay bu ndaw man maay yaay bu mag balaa moo tëdd ni muy def sama yaay noonu la may def dañoo dàqante ma koy feccal feccal di feccal mii reetaan timis jot mu dem jàpp julli timis gisaatuñu petit loolu mooy sama moom te chaque jour mu ne ma yaay reetaan loo sama papa ba sama papa dee moom dama kaa reetaan loo ba mu dee petit bu may wax maama petit benn salaatul alal nabi bu si may jàng mu ma bis bu ma deewee defal ma salaatul rooxi yu bis bu ma deewee defal ma salaatul ummi yu mu ne tibile 41 xul wallaahu axad bu ko fàtte de du ay kàcc du ay naar du ay dara wallaahi yàlla rek ma tiim fi alxuraan ba ñun ñi naan ko danga dof dangaa lii dangaa la grand petit rey na Petit nee na bu ma sañoon bépp musique bu nekk ci télé bi dañ koy dindi nit bi la dara amul lu dul yàlla mooy ëwalu mooy aaxiru mooy baatinu mooy samaawaati wal ard Petit bu lay jàngal faatixa sax boo koy tari danaan la bàyyi leen i da leen wax iya mi génnee fii wallahi barki démb ma kii Fatou saw mii jabaru Issa ñoo toog ñiy def Issa ma naan ko man ba njëkk ba Issa Diakha laa doon wax léegi Issa Diakha ci loolu ñi ciy werante sama jour daju papa ci guddi gi petit ba mu suulee sama papa ba ñëw sama xol sedd na nii lay def moom nii lay def war mu def nii loxo bi sama xol sedd na ay tibile mboole mboolom bu ci bu ànd ak sama papa man ko sa papa kilifa la grand petit petit rey na ma rey na ma man duñ ma fireeti sama bopp duñ tojati picc duñ ma defara defarati gommage duñ ma bësati. ah kooku dee na kooku dee na kooku dee na rey nañ ko ba mu dee nee na yaay ji lu mu lu mu bu ñaanee sama yaay dara sama yaay bañ mu ne ko yaa xanaa du yow yaa wax lu des sama desitu àdduna bi yaa ko moom maa ko moom. yaay ji danaan ko ay sama caat mi ci taar bi ay grand petit yu baax petit yu bëgg mbokk petit dem na ba Cees di wëri ay mbokk mbokk yooyu ñun suñu bàjjan lañ ñu jege jege jege jege man mosuma faa dem petit dafay dem dafa def am une semaine petit rey na moom jaale naa leen ko allahumma amin di ko jaale mboolem doomu aadama di ko jaale ma famille Fadiga famille Konté di ko jaale ay xaritam ay doomu ndayam ay doomu baayam di ko jaayee waa Yilingara waa Bakel waa Mudéeri waa Jawara waa Mannaayeli ñëpp a ñëw di jóge dëkk ak dëkk di ñëw donc jërëjëf yéen tam yàlla leen yàlla fay ngeen ñaanal ma képp ku mën dama ñaanal sama rakk bi garanti xul wallaahu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 façon yu